Sénégal mun nga marché mun nga def lu la ne mais à 400 wala périmètre du palais je pense que tey jamono ji toll na foo xamante ni tey sécurité réew yi tey gis nañu réew yi ñu dendal yëpp gis nañ terrorisme bi tey donc ça veut dire que tey ëllëg ñoom mun nañ ci rax ñi ñi def ñi ñi boom ñi donc ça veut tey war nañ xool ñi ñoom Guinée Bissau ñan ñoo nekk seen ginnaaw lan moo nekkoon démb seen taxawaay lu tax ñu def lu ñuy def est-ce que amul ay nit ñoo xam ne dañ leen fay pour ñu def donc je que tey lii dossier bu sérieux la bu ci bu ci buñ ko caaxaanee te buñ ko foowee parce que tamit suñu institution la keroog gis nañ semaine bi tribunal Louga saccagé nañ ko démb gis nañ Guy Marius Sagna ñëw tribunal euh, ñëw palais palais de la République donc je pense que tey suñu réew notre pays est menacé te je pense que force doit rester à la loi si je me on se rappelle bien le 30 mai 2018 pour ne pas ni ay par par loi am na amoon na ay ndaw yoo xam ci alliance pour la république lañ bokk le mouvement mère, dañoo ñëw ba ci présidente la république jafandu ci gri bi dañ leen jàpp jël leen tëj leen dugal leen ci kaso bi nit ñi fàtte xaju fi y avait en 2010 2011 ñom Guy Marius fu ñu nekkon ñun ñoo doon wàcc ci mbedd bi parce que lan dañ doon wax xuy xuy xamante xamante courant amul woon mais tey on est en 2019 donc tey li ñu wax mooy courant bi cher na te xam nañ ne tey aussi tamit au niveau des des pays yoo xam dañuy jël exemple comme ay France yëpp gasoil bi lépp fa yokk ñom les activistes nañ am yar am teggin xam ne dàqu ñoo xeex gënuñ ñoo dégg tubaab gënuñ ñoo ëpp ëpp ñu ay diplôme moom ñu réew mi ñoom nag bu nekkee dañoo am yeneen passeport wala yeneen réew yu dul Sénégal nañ ñu ko wax ñun nag réew mi mooy suñu réew Sénégal lañ xam te Sénégal lañu bëgg a liggéeyal te ëpp ñu fi daraja ceux qui s'activent aujourd'hui daal les réseaux sociaux di saaga ay marabu di saaga ay chef d'état di di wax lu leen ne nañu xam ne réew dal ak tey moo ko yor te Cheikh Anta job daal na ko wax nee na même boo amee dëgg dëgg bu ànd ak xuloo ak ay saaga day mel ni day mel ni ay fen la donc dañuy dal dañuy tey di lancer aussi un appel à la classe politique majorité opposition nañu condamner acte bi nañu nañu demander ñëpp nañu demander que Guy Marius Sagna et compagnie nañu leen traquer nañu leen juger pour acte de terrorisme et pour atteinte à la sûreté de l'État Sénégal bo amul métier amo porte, amo place da ngay nekk ci médias yi nekk ci réseaux sociaux yi buzz gis nañ fi tey opposition opposant yoo xam ne utum bës def ba tey élection passée am nañ ay pourcentage donc loolu mooy commencé phénomène boobu mooy commencé am Sénégal mooy ndax nit ñi ci wàllu média bi mais ñun ñëpp xamante nañu parce que ñoom tamit war nañ leen xoolaat lu ñuy dundee parce que ay ay force obscure bi moo nekk seen ginnaaw pour jéem a taal Sénégal bi gis nañ fi affaire waxul wàllu pétrole bi gis nañu jaar nañu jaar nañ fu ne mais mënuñoo atteindre Sénégal te xam nañ le président de la République tey 2019 lañ demoon élection te président da leen gagné ci ay urne léegi nag ni ñu xool façon bu ne nu ñuy taalee Sénégal pour Séné président mën a gouverner mais heureusement le président l'a compris et président préoccupation tey mooy comment dérouler son programme 5 3 5 comme il avait promis au Sénégalais et comment aujourd'hui atteindre le Sénégal émergent en 2035 qui qui qui qui, transcende aujourd'hui des générations et qui ne va même pas le trouver ici.